fii masjid yi am mu ne loolu yow mu ne jullit boo xam ne dañuy xool mbokkam jullit bu tëb cofeel loolu mu gën mu ne te te te te te te lu ñu dara def ñu ne kon ñu yokk leen itte dañ dañ lay jaam itam di la tudd yonent bi ci mosal gën ñu bëri mosal na ci nam leen ko wóor kon nag ñun yow sallallahu alayhi wa sallam ak Mawlana Cheikh Ibrahim ak Cheikh Ahmad Tijani ñooy suñuy référence yow ñu ko bëggoon yàlla Cheikh Ahmad Tijani ko bëggoon yàlla bàyyi na sama bëggoon yàlla moo tax ñu ne tam ci yoon woowu rek la ñuy jaar amul beneen yoon bu ñu boobu lépp lu am ci soxla ñu bugg yàlla ci lañ ko amee. mbokk yi yoon bi tax mu tàndal ko bii te gis nga ko te dana ko fay yoon bi boobu nee na ku ko képp ku bépp képp ku bépp ci man man danaa bépp ci yow. mucc nga texe nga jëm nga àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan nekk këram ñeent weer ak na la safara bu ko ba benn bés jënd ci am lu mu xam ne mooy sos yow bi ak ci bi ak ci bi ma ci mu jël jënd benn ci juróom benn dërëm te génn di am loolu gërëm mu gis ñu génn boo xam ne moo ko gën a xar xar ay yére mu xotte ko ay yére mu ko kii daal moom mu ma jënd yonent bi daal di koy su gàtti marché bi dañ ko dañ ko mën a def ñaari dërëm waaye da da da koy bëgg jaay benn bëgg ñaari dërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy soxla لما يوم المصر حسب إليه لو لو يرمي لما يقول اسم الله يوم المصر يوم من يعلم من يعلم أمر بيوم الاستقامة وإنما يقول بدر يعني يقول يقول أنا من المسجد أنا من جميع juróom bii yow dañuy taxaw ci buntu bi ne salaamaaleykum kenn fay ko lu nekk na salaamaaleykum kenn na fay ko lu ko waxee yoon ñetteel bu xam ne su ko waxee yoon ñetteel dafay ko dafay dem yoon ñett na ko waaleykum salaam Didn't waa ji jógee ko ashhadu an laa ilaaha illallaah أشهد وكان أشهد أن لا إله إلا الله ينفع يلا بنا ما يقول جوك أشهد أن محمدا رسول الله ويقول جوك يلا نمنا قبل يوم بسم الله dañu ay jëfandikoo ne nañu yónnee dañu yónnee ci ak man la affaire ndax boobu la alal la waaye ku ne xamu ne yow dañu ci kër yi ñoo wax ko ko te ndaw ñoom ko jooy yow bi ngeen di bàyyi ñu xëy nii daal di dem ci yàlla fay yàlla gën a xam ne jëloon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lekk loolu lekk moom ko te am il faut que mu ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu sigle mooy laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah fu ñu dem moo ñu jóge loolu lañu àndal loolu la ñuy wax góor moom lay wax jigéen moom lay wax mag moom lay wax ndaw moom lay wax képp koo xam ne yaa ngi wax laa ilaha illa allah ci xeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko kon nag dañu war ci topp ndigal yi ak bàyyi tere yàlla digal nañu ay digal tere nañu ay tere digal li mooy lan mooy mbokk lislaam yi juróom shahadatu an laa ilaaha illallah ko wax boo dundoon téeméeri at kéefar nga génn nga ci kaw doon ko waxee ba gannaaw gi dafa dafa ci julli dafa ci asaka dafa ci koor te mooy sa sa sa gémmiñ yëpp yow dina juróom yii képp ku xam ne jàpp na ko benn waay dafa ñëw ne ko yow bi ma ko wax waxal ma nga yem ci yàlla ndax yàlla la ko yow dina ko mën a gëj ci yàlla yàlla

soo ñëwee ñu xam ne gis ko bu gis yoon bi dara Sénégal Sénégal boo xam ne dafa am jëm si wàllu mbokk yi Sénégal ñun xam na si réew yi réewu lislaam nañ ko jàppee noonu danañuy demante ci diggante danañuy baal